di seetaan senclic point com maa ngi fii ci Grand Yoff ci quartier bu ñu naan Arafat ci benn anniversaire bu rëy euh, benn doomu Arafat organisé ko tudd Thio soo gisee sañse yu rëy yi yëpp ak koñ bi di riir nii Thio moo ko waral léegi nag man daal riir ci biir daal bëgg naa xool lu nekk ci biir ndax sànq bale sañse yeeg may romb gauche ak droite xanaa damay xuus ci biir rek ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi ñu ànd dugg ci biir. ne ma xam na ma Olivier. waaw. ma Xabi Sow bëgg te bëggantuwuma. Xabi Sow lum xëyle du def dara te tàgguwuma. moo tax mu ne ma yaat day yaate ey ana ñi ko bëgg ey Xabi Sow mu nar. moom lu mu nar xabi lu mu nar xabisa lu lu mu nar ey xabisa lu mu nar ey xabisa lu mu nar ey euh, na nga def soxna si maa ngi fi maa ngi fi sa tur abi waaw ma gis nga bokk ci marraine yi sànq ba léegi maa ngi lay gis yaa ngi fecc di may xaalis ma xam ne ma bëgg laa laaj ci coow lu mu nekk ci yow ak mu doon ci yow. waa kay soxna si soo ma laajee cóol lu mu nekk ci man ak lu mu doon ci man damay sawar di la tontu parce que cóol moo ma jël yaayoo ma boppam bañ nag ma dox sama tur yaay rek la may wax cóol moo ma bëggal boppam cool bësam bii lu ma ci amul lu ma ci defu na dama ko amul barke sëñ Babacar lu ma ci defu na dama koo amul yàlla xam na lii mais cool moo ma bëggal boppam ba ma jeex cool moo ma bëggal boppam ba ma jeex bañalu ma dara yaay la may wax koy ñaanal daal lépp lu ma bëgg si bësam bi yàlla na Aïcha ay Aïcha Ndong laa tudd. Thio euh, lu mu doon ci yow ci bis bi ba tax nga otesul ko nii. ah Thio moom dafa nekk sama nit bu baax loolu moo tax fu ma jaar wax nan ma war wax sax ndax caméra moom mosuma cee wax mais fu ma jaar wax tey parce que Thio ba mu door a ñëw fii ah daf ñoo bëgg def ñu ñuy nitam def ñu ni seen rak ah, fu mu jaar wax tey dafa baax daa góor amul benn problème Thio bu ko nee tey daa tëggal suñu programme daf ñu tëggal gratuit kon daal coow moo la jaral ote sii nii. jaral na lu ko raw suñu nekkee di wax coow bi fu jóge dañuy fanaan barki yu leen coow lu mu doon ci yow ci bis bi ba tax nga defal ko otes yu baax yi. barki yonent bi coow dafa nekk ku baax dëkk ñun si koñ bi soo xewlee jaral na ko mu ñëw tëggal la te doo fay moo tax ne rek il faut ñu defaroo ko lii defal ko ay t parce que teelu ñu ko yëg xam nga ne. cool yéene nañ ko lu ëpp lii bàkki yonent bi moo tax ñu simplal ko nii rek ñëw teeru si kaw suñu góor tamit bokk ak moom Grand bi rek ñu def lii. Euh, loo koy ñaanal ci bisu anniversaire am bi. ah di ko bu mu fi yem mu continuer law ba faaw ba ñuy dem ay grand théâtre di ko fa célébrer barke yonent bi di ko ñaanal nu dund lu bëri naaj. ok merci waaw daanaka oto si dañoo rus euh, mais merci beaucoup. Thank wàccee boppam bu wootee c'est la première fois dañu ñaan yàlla mu gën a yokk te xale bu yaru la daal cool maa suñu cool daal. bu ko xam loo koy ñaanal ci bisu anniversaire am bi tey. waaw bisu anniversaire bi lu ñu koy ñaanal xanaa yokk ba barki Seydina Mouhamed mu am tuddee ko Seydi cool ku ne xam ne anniversaire waaye barki démb boo ñu xoolee xam ne dañoo froissé dañoo ne la ba futteeku toj yi toj coow mënuñoo bañ a ñàkk ñëw ci ba samedi maag sama doom nday bi barki Seydina Mouhamed yokku ba yokku di ñaan lii mu doon ay anniversaire arrivé yoo xam ne da ci biir boîte yi ñu koy fekk si te xam ne nag moom wow na nag pël ci guuxum soow te fii tey dina ni tuqu sa bën ma saañ ba réer daal dëgg neexul merci beaucoup soxna si ça ñu bëggoon xam tur bi nan la la euh, ma bëggoon xam borom bis bi lu mu doon ci yow waaw borom bis bi day sama nit day ku bokk ci man cool dafa yëg ñëpp respecté ñëpp jox ñëpp cër surtout man sama seex bi saa yu ñu gisee daf ñuy jox cër gi ñu moom cool boo koy nuyu sax day wàccee bëtam mi ndax kersa man mi di wax yow sax ma feebar mais bësam mi du ñàkk ma bañ see ñëw foo ma teew moom mu gis ma barki Seydina ma ndax cool nit ñëpp la waaw. Euh, loo koy ñaanal ci anniversaire am ah xanaa gudd fan ak wér gu yaram di nga ñaanal mu ngay def chaque at chaque at te lii yàlla na doon jiglaayam ndax cool ni nit ñi la xëy na ci kanam nit ñi dinañ ñëw depuis dina gën a màbb damaa feebar waaye foo ma joxe bi sama li ma man ay boo jàmm gën a xam. waaw boo tax ñu bëgg a xam di nga dugg fii euh, ñu gis waaw waaw samay sale sale parce que artiste la dama koy dund man mooy sama métier maa sama doomu nday mi toog ñun amuñu lu aar moo tax mi ngi sunu mbokku aar yi yëngu ci aar dañ lay ñëw sotale ak Wally Seck ba gis fa lay jógee ni sonn coono man ku ci mel man damaa xiibar maa ngi ne damaa feebar waaye sama seexa ma génne ma ne ko même ba ma génnewu damay ñëw parce que coow suma nit la lii moom yàlla na koy def chaque at chaque at yàlla na koy def yàlla bàyyi fi ñun ñëpp waaye ñu koy fekkee ay ati at nga xool ci kanam léegi ñu wane fi léegi suñu bopp incha allah nañ xaar merci beaucoup fii artiste bu mag doomu Grand Yoff di borom yoole yoole euh, ma bëggoon xam tey lan moo doon sa teewaay fii ci sabar bii waa nuyu naa la day sunu xarit di sunu lépp ñu nekkandoo ci aar bi di ko defandoo mu bëgg ñu lool nag di ñu jàppale saa ñu wootee cool day bàyyi lépp lu mu am ñëw di ñu wuy si te ñu nag moom nag ñëw bokk benn groupe nekk ci groupe bi kon bés bi damaa jàpp ne tey cool mbaay xewlewul ñun ñii ñoo xewle tey sunu bés la te dinañ ko yëngal ba mu neex loolu am na. dama ko anniversaire bi loo ci ñaanal. waa di ko ci ñaanal moom réussite bu mag rek xam nga artiste moom amul lu dul carrière ndax boo bàyyi lépp jël carrière aar visionné ko nekk xale dëkk Grand Yoff mu doon jël beneen yoon jël aar bëgg ko pour def ko liñ lay ñaanal man damaa xam li ci nekk parce que nag dund ko fii Grand Yoff dafa métti trop waaye yal na yàlla def jàmm mu koy feete at mu jot ba koy yóbbu ci boîte yi ba jëlee ko fa di ko yóbbu ci salle gën a mag ci Sénégal ndax lool la ñuy ñaan ñun Grand rek la ñu te moom la ñuy tiitaroo waaye nag lii kontaan nañ ci torop ndax innovation bu mag la da ko doon def daani béer ci biir koñ yi léegi baas na def ko entrée gaa yëpp di teew di ci jàpp kon am na solo dañ koy ñaanal daal suñu borom defal ko ci lu rëy. Euh, si kanam defal fi benn acapella ñu xam sa talent ci biir Grand ndax nga nekk artiste bu mag xale xam la ñëpp xam la euh, ndax si kanamee ndax mun nga defal benn acapella ñu xam sa talent daal. waaw tax nag xaw ma ñan ñoo xamul waaye waa Grand xam nañ waxuma laa nag waa Arafat gii ma juddoo ndax mën naa ne man fii laa fekk mbaax kon ñii xam nañ ma te waa Grand Yoff xam nañ ma ci kanam tuuti dina tàng nee naa la ñun suñu liggéey commencé gul nañ bàyyi xel li am Grand ay artistes lañ dañu ne feneen dàqu ñu ko mën nañ ko bëgg nañ ko te gëm nañu ko te bu ci kanamee tuuti léegi mu leer ndax nee naa la cool mbaa ngi fii tey bu ci kanamee tuuti maa ngi Kabana Club mu doon soirée spéciale tàggatoo ndax ku ne xam na ne ci weeru koor lañ jëm di wax waa Grand bu ñu jógee fi ñu fekk ñu Kabana ñu yëngalaat ko rek comme d'habitude. incha allah kon si kanam ak Kabana club ñu tase Kabana club incha allah. force la ni yàlla bindee dund ak dee xam nga loolu force la waaye sama teewaay force la nag ndax cool day sama rak mun naa ne sama jarbaat euh, doon élève ci man lu bari ñu defandoo ko man ak moom yaa ngi dégg kon bu xewlee euh, foo jaar ñu bàyyi lépp ñëw ci événement sax newoon ci soirée nii nii nii bàyyi lépp. ñëw ndax moom parce que doon nañ koo xamante ne am na yar am na teggin du manque kenn respect ah, loolu moo waral bu wootee dañuy bàyyi lépp ñëw dafa mu xat fu mu toll nii mais dañoo bàyyi lépp ñëw ndax moom boo xoolee boo xool grand yi mu toll nii bokk na ci xale yoo xam ne révélation lañ te malgré sax amul ci direct bi mais bëgg-bëggam ak ambition am dafa tax mu avancé lu bëree bëri ci aar bi boo xoolee ñenn tëgg programme ay doomu ndeyam te moom ñoom ñooy ànd mais ay xale rek nga fay gis gisoo fa benn mag. moo tax damay kontaan ci moom dañu ñëw di ko dooleel di ko yokk bu bu dul lii saa bu xëyee mu ngi sunu kër ngéwél moo tax bu xewlee Arafat nii rek la man a mel nit ñi ñëwagul sax bu ci kanamee léegi mu neex bari sëñ Tuubaa. loo koy ñaanal ci bisu waaw dañ koy souhaité happy di ko ñaanal mu koy dund ah, mu koy feete at yu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla di ko wax nag ah, aar bi nii la ah, kenn moom ko baayu kenn moom ko wala yaayu kenn moomu ko affaire yi fit la kese bu fekkee yàlla da laa dénk jom nga am fit da koy wone te moom am na fit am na jom te talent baa ngi ci moom dañu koy ñaana daal mu xuus rek bu mu ragal dara dina métti nag dina lëndëm loolu mais na xuus rek yàlla na aar bi noonu la demee. ok merci kon ok ci la bokk defal rek jomb moo ko yelloo ndax sama góor la sama lépp bëgg ma bëgg sama doom bu mu jeex yaa ma gën a xam tamit du si silib jaalaa si bés loo koy ñaanal ci bisam bi maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg si yal na ko ko yàlla may lu xam si yoonu musique moo ko xam yal na ko ko yàlla defal te lu muy tamit moo ko xam yal na ko ko yàlla defal Diol daal jàmm rek lay am bu ko laal waa soxna si xanaa yow Niki Arafat wala Niki Grand yow def ful falaala rakkaaji jongo ma benn heure ba si mbina <laughs> merci nee na neex na quoi lu muy gis waaye trop quoi affaire bi ngeen ndax mi ngi soog a ñëw ci assister genre événement yi wala es la primera ah, vez que tú vienes en esto ah esto sí la primera vez sí primera première fois yi quoi ok merci noo tudd Maguette laa tudd ñu ne da ma laaj la borom bis bi la la jaral tey. ah Thiour moom dafa ñëw rek doon sama xarit sës ma rëkk te rëkkuma dafa nekk si koñ bi baax yaatu mënoon na mel neneen waaw dafa ñëw daal bëgg ma daal mu ñëw jël bésam bi tuddee ma ko damay def lu dul daal teew daal waaw. moo la jaral sañse bi yëpp. waa gis nga moo ma jaral lii yëpp. loo koy ñaanal ci bisu anniversaire bi. ah maa ngi koy ñaan euh, réussite totale fetem bi mu am si loo xam ne daal mooy loolu daal mënu wax nag. merci soxna si. look euh, ak euh, Niki Grand Yoff laa jàkkaarloog ñu tey ma laaj ko tey borom bis bi lan la ko jaral ba mu def sañ si ci kaw ba ci suuf. waaw kay tey dëkk bisu Thione te sama mbokk bëggal si dama koy wis loolaa si hmm, léegi loo koy ñaan ci bisu anniversaire bi tey. bisu bu tey bi maa ngi ñaanal coow yàlla na koy fekkee ay at bu tey bi nii hmm. yàlla na continuer di réussir ba merci beaucoup. tey ñu tuddee ko bis bi barke Serigne Touba Thiel. loolu dama lay xamal ni la maanaam yaa ko tuddee doon. loolu la bu doon yow la bu doon yow xamal ni waaye sii bi ma fi yaakaar ak ñu ngi nii. coono sama nag. sii bi dama nag ak su ma sañoon. waaw coono dafa laa tuddee doom. loolu nag moom mooy yàq na ko xaalis bu bari. loolu nag waaw jamono dama koy may sama doomu ndey mu cër dafa maa tuddee doon. bàyyi Sidy ngi nii. waaw. te Thion. non Sidy li mu def nii man maa ci kër ak Thion ñuy ñaar. xam nga li tax. dama ci kër ak Thion. sama rakk bi ma ngi toog papa nga ni sama rakk. sama kër moto bi ma lay xaar. def na fi lu ne ñuy génne noonu la. aar bi demuñu ci amuñu ci téeméeri ak waaye demuñu ci téeméeri yi kon ñu ngi lay yëngati ñu yëngatu ko. Euh, waaw damaa toog ak borom bis bi ku waral coow li ku waral seeg yeeg siis yeeg bâche nit ñi euh, mu tudd Thione euh, sëñ bi maa lay nuyu. waaw maa lay fay. delam waa Thione Mbaye moo xewle bàyyi Sidy Diop moom bu xewle di rek la mën a demee ndax daa baax bëgg ñëpp waaw di si ànd sama waa groupe mais xale yi ndaw. xale xew si jamono bëgguma ko moom dee di si jàpp nag saa su ne lu ma xew la ñu takk si rib mooy mafia tranquille waa groupe ñoom laay faal gars yi am daal aw ma ser fay yéen waa télé bi yéen daal am leen jàmm rek waaw na Serigne Touba bilaa xëy nit yaa war a toog ba tax nit teewale loo wan nit ñi ak ban baax nga wan nit ñi ñëw teewale waaw dama ne xale bu yaroo ma ci tàngal yooyu ngaay man dama dama dëkk su bi defar koñ bi waaw jàpp koñ bi nag xale lu nu xew la ma takk si wax dëgg yàlla waaw. mais nga. bu mag Thiol Mbaye boo demee Facebook YouTube boo bindee Thiol Mbaye dëgg du neex waaw. Ah, merci beaucoup nga xewle nit ñi ñëw def déplacement ak dérangement yàq seen nelaw yëpp looy ñaanal nit ñi. waaw képp fu ñëw maa la ñaan na nga am yàlla na jàmm yàgg na jàmm su la lépp xaj te kontaan na aw ma fay wax dëgg yàlla aw fay télé beeg cameraman yi tëggkat yi feccekat yi xale jigéen yi xale góor yi nday ndooy moo di aw wax dëgg yàlla waaw man daal maa ngi ñaan ma am fay yàlla ma ne yàlla fayal waaw. waaw merci

biir xol bi de laa ko def maa ngi koy ñaanal daal gudd fan rek laa ko ñaanal ak wér gu yaram. sama xol sedd na torop sax Sira Cool Mbaay. maa lay fay. Ramatulaay. bis bi la toll ci euh, moom am contentement rek franchement am mbégte wax dëgg yàlla ndax wootee ay nit wuyu si la yombul te gis nañ fii moom macha allah dafa romb suñu njott moom bis mu moom defuñu si lu dul contentement moom franchement macha allah moom. kon loo ko dolli ñaanal rek. Ah, maa ngi koy ñaanal gudd fan wér gi yaram ah, lu mu mën reen yàlla na ko mën daaw wax dëgg yàlla ndax suñu rakk ju baax la. Ah, wu euh, magloowuñu rek ñëw di ñu xool wala di ñu ciibatu di def lu ne daf ñoo jox suñu palaa jox ñu suñu wàccuwaay jox ñu nag mag ba mu mat sëkk wax dëgg yàlla moom moom moom xale xale bu loxom set la te Olof Njaay nee na xolo xale bu loxom setee mën a bokk euh, ay mag macha allah moom moom mention spéciale ca kaw ca kanam rek. waa tey moom suñu xol sedd na guy wax dëgg yàlla suñu xool moom sedd na parce que dëkkandoo yi ñëw nañu wuy si la li nga xamante ne tamit c'est euh, rare nga woote say dëkkandoo ñëw njëkk a ñoo feesal say chaise say xarit yi ñëw say am di jàmm xam nga kon boo sékkuloo nit ñi jàmm rek loo doo ko am wane nañ de carrément ne koñ bu mu euh, koñ bu mu juddoo moom macha allah ñëpp jàmm ak salaam dongo la am si ñun moo tax wax dëgg yàlla kontaan nañ ci trop trop trop. kon seen ah, aw ma seen fay. man moom fii moom dama am fierté moom ci su ma waxee la moo Arafat rek man ñoom lay ndamoo di leen safoo parce que carrément nuñ naan judduwaay moom dafa neex waaye nag fii la fekk baax moom waa Arafat moom aw ma seen fay wax dëgg yàlla maa ngi leen ñaanal ñoom tamit ca kaw ca kanam moom mention spéciale à eux macha allah. Euh, may tudd Ramatoulaye Fall. merci beaucoup. soxna si kon te loo ñaan si bis bi tey. ah macha allah yàlla jëm kanam. xool si xool ma. kon soxol sedd na guy. sama xol kay macha allah kon jàppale tey coow ma war a sañ si fii ci kaw. wala lépp moo waral lii lépp. sama doomu ndey. kon soxol sedd na guy. kon loo ko ñaan sa anniversaire bi. gudd fan ak wér gu yaram. Hmm. yàlla na dund ba dund sàppi ko mu ci dem àggale. allahumma amiin incha allah damaa fàtte ma tur bi. Dieynaba Touré. ok Dieynaba. merci beaucoup ok loo xam sa bésu doomu ndey bii di coow. waaw ah. dama ne Léopold Sédar Senghor bañ ko laajoon lu bokk tubaab bi dafa ne longtemps kon lu yàgg lu ne dëgg la maa ci yool démb la ak barki démb tey soog a ñëw ah, ku dem ba yëkkati doom tuddee la ko deseetaloo dara au contraire man maa deseel cool te incha du ma gën a gore yàlla ñu fi dee gi bàyyi incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bis bii nii yàlla dem di nga feete ay ati ati ati at ba mu yóbbu yaayam màkk ba Sidi mu ndaw màgg ba mun kaa yóbbu màgg moom it ba mu teral jabaram ci barki Seydina Mohamed yàlla musal leen ci seytaane ci cat ci musiba ak balaa ci barki Seydina Mohamed loolu laa koy ñaanal waaw. Paul Mbaye. yàlla dogal na tey ngay sa anniversaire tey. bilaay war a fan ñëpp ñu wuy si la tey. waaw sigil la sagal la dooleel la. bilaay xala tey ñooy sant ak ñoo gërëm si bis tey. waaw waaw ñu may sant maa ngi sant euh, sama waa association bi laay wax waaw sama association bi aw ma seen Ndeye ndoy di jiital Bouba Ñambi di Lay Fall baay baay Fall bi dëgg du neex waaw maa ngi gërëm ñëp gërëm tëggkat yi gërëm fecckat yi waykat yi ñu ranger la baas yi ñu ranger la sées yi ñëpp maa ngi leen gërëm wax dëgg yàlla ndax jàpp nañ ci ba mu neex caméraman bi moo du yow kenn amul sa fay. ah dëgg la ñoo far. yàlla ak yow a yow boo ñëwuloon tey dëgg du neex barke sëñ Bamba da ngaa jàpp si bés bi laajoo ma dërëm Jeylaane kenn amul fayam Jeylaane moom moom lépp mooma barke sëñ Fallou moom lépp moom daa baax dëkk Grand nekk artiste nekk jeune nag mun lu muy def nag nekk xale bu ndaw mun lu muy def wër na Serigne tubaa di xale bu ndaw nag di tàggu mbaar waaw bu tàggoo mbaar rek dëgg neex may baas yow moom borom Grand Yoff kenn sa fay Sidi waa jekkeli Ndeye Ndoye ak may baas bu dul ñoom mu ñaaw barke alxuraanul karim Ndeye Ndoye moo tax lamp yi leer barki Seydina Mouhamed lii nii moo ko waral Ndeye Ndoye yàlla na yàlla guddal ay fanam ba yàlla may ko bés bu rafet barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam may baas ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax Ndeye Ndoye ngi nii suñu jigéen moo bëgg cool ba mu jaax nday ndoy nga ne lan waaw gis nga waaye sama borom a dooleel muy Modou Diop dooleel ma mun naa lu ma sumb lu ne mu dooleel ma si wax dëgg yàlla seetaanu ma ci damaa gaaw a jooy damay jooy de damaa gaaw ma benn yoon moom tam mu ñëw rek bëggal ma boppam ma ko benn benn caméra am indi yàlla def bés bu rafet rek incha la ko yàlla defal Diop ji ba kontaan naa man ma rek nopp ma rek yàlla yàlla def bés bu rafet rek dama bëgg na la yàlla yàlla def bés bu rafet looloo jar ñaan